comme ni ni ngeen ko dégg rek waaw suñu papa Gaston wax na ko IACOM la àndal ci euh, làmb ji kii nag mooy Issa moom bokk IACOM Issa ñu ngi lay ziar. ziarati yal na yàlla nangu. Issa ak IACOM Issa lan mooy IACOM sax laa lay njëkk laaj. alors IACOM benn euh, kuréelu communication la buy yëngatu ci wàllu communication marketing ak événementiel loolu moo ko tax a jóg. loolu sax d'ailleurs mooy wàllam ci ndaje bu rëy bi nga xam ne moo am tey. yow lan ngay yore foofu comme rôle. waaw man maay directeur généralu IACOM lépp loo xam ne moo jëm ci maanaam saytu kër googu mooy sama cër ci biir IACOM. kon yéen yéen tamit partenaire ngeen ak Gaston production ci combat bi mu tëgg diggante Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2. waaw partenaire am lañu parce que lépp lu jëm ci wàllu communication bi ak euh, marketing bi ak euh, sponsoring bi lépp lu nekk daal autour du combat. Euh, IACOM lañ ko dénk ci ci biir euh, ci biir ci biir événement boobu donc lëkkaloo la boo xam ne daal euh, c'est pour yokk làmb yokk làmb fexe ba làmb tegaat beneen jéego parce que nag innovation bu ne am na fi mais kenn ku nekk boo ñëwee rek da nga ciy béy sawar parce que tam yaatu na kenn ku nekk y a de la place pour tout le monde comme on ko maanaam kon tey tam mën nañu xaar ëllëg bu leen beneen promoteur sollicité woon pour liggéey ak yéen pare ngeen pour def ko. waaw loolu lu mën a nekk la parce que ñun dañuy yëngatu ci wàllu woowu. et euh, par le passé am na promoteur yu ñu liggéeyal. te euh, mën nañu liggéey kenn ku nekk mu ngi aju rek ci ñu def parce que nit dafay baax looy def rek mu nekk loo xam ne danga nga ko gëm parce que nag euh, bu ñu waxantee dëgg dafa am image dafa am ndax événement moom boo koy def bëgg koo jaay dafa dafay baax événement boobu image bi muy delloo nekk image boo xam ne image bu ko jar la ndax tamit euh, mbër yi boo ko xoolee euh, du ñëpp ñoo tolloo njëkk ni ñu ñàkk tolloo njëkk ci wàllu dayoo noonu la ñu ñàkk tolloo njëkk tam ci wàllu image nit nekk na fi fi ñuy wax VIP te taxul image am neex a jaay waaw loolu lu lu lu lu am la. mbër yi ngeen amee bi yoon daa mel ni seen image neex na ñoo jaay moom Balla Gaye Modou Lo. daj dëpp la ndax man xam naa ne par le passé euh, yàlla dogaloon na ma am feneen fu ma doon yëngu mus naa def campagne bu am solo ci diggante ñaari mbër yi muy Modou Lo ak Balla Gaye mais bañ ko doon def daanaka combat amul woon seen diggante boobu fekkoon na ñu bëri seen combat bu njëkk ba mu weesu saison bi tëjoon na seeni image rek la ñu utiliser woon. dal di am lu luñ ca def mais wax dëgg yàlla mu jur ngëneel bu bëree bari ci société bi ko bi ko bi ko doon deflu kon dafay tekki rek ne ay mbër yu am ginnaaw lañu te ay mbër yu am image yu yu yu yu yu am solo lañu. Mhm. pay-per-view bi dinaa la si laaj def naa bokk na ci événement bi tamit. waa bokk na ci parce que am nañu partenariat ak Buzz Pro euh, ay weer a ngi nii ñu ciy liggéey di ci waxtaan ak ay euh, opérateur di ci waxtaan ak ay sponsor mu nekk loo xam ne daal lu lu am njëriñ la euh, te xam nañ ne jéego lay doon ci ci ci ci ci làmb ndax euh, boo ko xoolee fi mu nekk nii euh, sponsor yi ñu ngi ci làmb ji ba léegi mais bëri na ci bëreetuñu nañu bëree woon walla xëj na participation contribution financière bi tollootul na mu toll woon kon dafay laaj mu am yeneen pexe pay per view bi commencé woon na fi mais dañuy def rek lu dul yàkkali ndax Buzz Pro moo ko defoon bii yoon moo ko nar a defaat euh, am na lu mu jànge ca bële loole dañ koy appliquer dina tax mu gën a yaatu parce que nag njàng moo gis ci benn lay lay lay commencé euh, amoon na ay couac yu ci amoon yàlla dogal na yu ci bëri léegi amatul euh, mais am nañ yaakaar ne daal dina dina am solo pour ñëpp. Mm-hmm.